junjoon na leen la fois passée programme genre bi ñu bëgg a samp ci école yi daara yëpp actuellement ñu ngi koy jëmal organiser woon nañ benn ndaje fan yële ci Jurbel lañ fa waxtaanee ak ña ko teye woon yëpp jot nañ ci liste baa nekk nii ngeen seen daan ci ñëw détail par détail pour wal leen ne gars yi ñi ngi accélérer mbir yi moo tax bu ñu nangu ko ñu jamono jii bu ñu sàgganee bu ñu divertir ñu fekk boobu ñoom jël nañu avance fi ñu toll nii dañu nekk ci bataille psychologique bataille psychologique bi nag képp ku yeewul Blague ngay ximaliku fekk mbootaayu góor jigéen ñi ñoom dóor nañu galgal ba dem seen yoon semaine bii ni lan moo xewru inspection bi maanaam ministère bi ñu dénk wàllum éducation ba fay njàng meeg mi moo proposé sujet ci matière d'anglais jëm ci wàllum góor jigéen yi ñu n'importe quel sujet ab ndaw la ñu jël ci misaal buy bind yaayam benn lettre di ko xamal ci borom ñaari tur yi la bokk dinañ résumé texte en wolof liñ ci wax kan di bu ngeen xam li gars yi di préparé xam nga jamono yu weesu UNESCO proposé woon na njàngaleem sëy ak mbiru góor jigéen ci biir école sénégalaise yi dajale woon enseignants yi ci benn séminaire Mbour ba fa enseignants yi génnee xabaar ko sénégalais yi ne leen lii li ñuy waajal baaxul suñuy doom gars yi daal di dellu ginnaaw reculer bàyyiwuñ du dañoo reculer ndax ñoom ñu bàyyi léegi nag comme que xam ne ni suñu jàngalekat yi kenn mënu leen convaincre ba ñu jàngale yu ni mel bañ na ko sax ba ñoom enseignants yi ñoo ngi ci biir ànd sàmm jikko yi ngir xeex góor jigéen

mbotay gor jigen ak état bu sénégal xamnañ ni askan wi ñu gis mënuñoo xey bés rek lo leen birum gor jigen légui nañ leen préparer ci walum xel di wax élève yi waxi genre di leen proposer ay thème gor jigen ba ñu dem ba mbir yi du leen safati bu ñu demee nag bu mbiru dootul choqué ti kenn moy daamu seytaane yi réussir nañ seen mission lenn mo ci des moy sénégal accepter mariage entre gor ak góor ak jigen ak jigen yi sey fi la ñu bëgg jëm ak ñun té ñom sonnuñ ci àpp nañ ko fi bu juroom fukkat duñu tay dañ koy doore ak sujet d'anglais bi nga xamante ni ministère bi ñu dénk wàllum éducation en complice ak inspection d'académie bu propose ay élèves terminal ci benn examen blanc ngir xirtal leen ci mbiru góor jigéen léegi dañu jël partie ëpp solo ci texte bi ngeen comprendre gravité situation bi ak lan lañ ci jublu woon benn ndaw su góor la buy bind bataaxal yaayam di ko xamal ni maa ngi jéggalu ci diir bu yàgg bi ma toog bindu ma leen yow ak sama papa mu ne li ko waral mooy mënuma génne li newoon sama biir xol lii la ñu tàmbalee bataaxal bi mu ñëw ci deuxième paragraphe bi ne naruma leen woon bind bi le bataaxal bu fekkoon ni waxoo leen ma seen bokk ci benn campagne yu kuréel gi sàmm xale yi ñu koy woowe Save Our Children ba tax na tey mënuma leen ñàkk wax dëgg bi maanaam man seen doom góor jigéen laa mu teg ci ne maa ngi jégalu yaay booy pas jégalu ci li ma doon déedéet waaye li nga war a yëg jamono gi ñu toll sàllaaw xam naa ko ndax li ëpp sama dund ba jamono gi may nekk tuut tànk sama tiitaange moo ne woon ku ma beddi teg ma gàcce wala di ma xarab lii tamit message bu doy waar la jëmale ci xale yi ñu proposé sujet bi ndax liñ ci jublu mooy gëmloo leen ni seen entourage environnement bi ngeen juddoo màggee ko prison la boo xamante ni daf lay tënk ba doo mën a am mbégte message bi njëkk bi texte bi bëggoon lancer élèves yi lii la. mu ñëwaat ci quatrième paragraphe bi ne yaay booy kenn wu ma ngir ma doon góor jigéen du benn borom ñaari tur bu mag bu ma tete ci tànk yi ma nekk waaye ma xamal la benn mbir yaay booy su ma sañoon ba may nekk xale am ku ma téye ci loxo ne ma feebaroo dara jotu la ku may gëmloo ni mën naa doon góor jigéen waaye du tee a tekki sama na doon médecin wala enseignant ku may xamal ni mën nañoo dund ci jàmm entre xarit bëggante te kenn du lijjanti sa moroom lu mu doon. lii la ñu bind ci texte bi ñu proposé suñuy élèves ngir jàngal leen benn mbir muy tolérance entre genre maanaam ku nekk nangul sa morom li mu doon moo xam muy góor moo xam jigéen wala góor jigéen wala jigéen jigéen yi sëy mu doli ci ne waaye yaay kenn jàngaluma loolu lépp maa ko sama bopp ci dëkk bii di san francisco bi nga xamante ni mooy léegi sama kër fii defuñu fi li ñuy wooye boddi wante ci wàllum sëy ndax kii góor laam jigéen la wala borom ñaari tur parti bi tamit lan mooy message bi manam en tant que xale bu la sa waa kër wala sa communauté nangulul li nga doon yëfi mbonn yu ci mel ni góor jigéen mën nga gàddaay dem wuti beneen famille beneen dëkkuwaay bu lay permettre yow nga dund sa mbonn lii la école sénégalaise bëgg a jàngal suñu doom ñu daal di ñëwaat ci texte bi moom xale bi mooy wax ba léegi ni dëkk ba mu nekk amul ay nit yu radicaux yu bizarre maanaam ñoo xam ne dañuy taxaw temm ne góor jigéen du fi am muy dem sax bay méngale ñuy xeex borom ñaari tur yi ak ñu waaye di mu ne dëkk ba mu nekk amul loolu fii góor jigéen yi ay yi lañ ñooy liggéey ci magasin yi dañuy saafonte yeneente jàmm ku nekk nangul sa morom lii aussi liñ ci bëgg a jàllale mooy ñun suñu réew yi comme par exemple Sénégal civilisé wuñ ñun ñi xarab ak de xeex mbiru de dañoo civilisation donc ci biir texte bi daanaka nañu réew ci Sénégal juste pour jàngal élèves yi que boo bëggee bokk jamono doon nit ku correct da ngay nangu pas borom ñaari tur yi ñu ne lii mooy doomi bu civilisé. ba tey ci biir texte bi moom ne doon jàngal na ma nangu bépp doomi li mu doon jàngal ma yërmande jàngal ma itam may na ma tamit ma gën a profité ci bépp bànneexu na dugal ma ci famille bu xam liy dëgg-dëgg valeuru doomi aadama mu jeexalee ko ni yaakaar naa comprendre ngeen ma léegi jublu ma ci woon teg leen méttit du ko mës a def jarul sax ngeen yàkkamti tontu ma dafa fekk ne mënatuma woy di wax lu dul dëgg ma la sa doom bi nga sopp lool Michael parti bii nag dañoo ñëw teggi lépp lu ñu diina jàngal ndax diina moo la naan àdduna gii ñëw ñu fi ngir caaxaan dañuy liggéey ngir mën a fay yoomal ñoom ñu ne ci biir texte bi nekk góor jigéen daf lay permettre nga profité ci bépp bànneexu na alors que àdduna bii ñëw ñu fi ngir loolu donc lii du diine du aada fi seytaane la beneen nag di ci gën a garaaw mooy biñ ne mbir góor jigéen daf lay permettre nga xam liy dëgg-dëgg valeur doomi aadama alors que ci wàllum diine nit ki am valeur ku ñuy naw ci wàllum jikko mooy ki topp digle yi bàyyi tere yi religion dafay tënk ba nga noot sa bakkan te boo nootee sa bakkan wàññi bàkkaar ñoom waa axlu góor jigéen ne loolu dafay dévaloriser doomi aadama nit ki dafa war a dund viam te dara du ko tënk lii la ministère bi ñu dénk wàllum njàng biir Sénégal ak inspection d'académie bu Rufisque proposé suñu élèves di leen ci poser ay questions ngir dooleel mbon influencer xale yi yàq jikko yi lii mooy programme bi ci biir école sénégalaise yi. léegi kan moo bind lii texte bii ñu proposé suñuy ndongo fan lañ ko jëlee kuñ naan Armistide pay moo ko bind kan moy Armistice Maupin moo nekk nii ngeen di seen benn écrivain américain la bu tollu ci 77 ans juróom-ñaar fukki at ak ñaar mi ngi dund ba waji ni gor nii góor jigéen bu mag la ngeen gis mu nek ak ni ci photo bi féete ko ginnaaw moy jëkkëram dafa mel ni déggoo ma ki mu andal ni ngeen sen moko tak depuis 2007 ñaari gor jëkkëram jooju mi ngi wuyoo ci turu Christopher Turner manam mom jabaru jàmbur la ci gatal ci góor bu ne leng xeexam yépp nak moy naka la ñuy def ba mëna accepter gor jigéen yi fépp ci aduna bi Mom, lolou Moy combat am la Sénégal à travers ministère de l'éducation walum di Mamadou complicité wu inspection d'académie bu Rufisque ont dem jël ci TAEF texte bii un examen blanc ngir jangal xalé yu tolérance manam nangul borom ñaari tur yi du njumté du saganté du lo xamanteni daf leen recc kilifa tay la def ndax Sénégal actuellement dafa toll ci état bu accéléré programme góor jigéen yi rax ci dolli ci biir école yi ci loolu la ñuy ñëw. nguuru Sénégal dafa dugal ñaari organisation américaine yu doy waar benn bi mooy Akazi Canos Access ñu gën ko xam ci CAS beneen bi di Education Development Center bu ñu jëlee Akazi Canos Access dañoo am benn programme phare boo xamante ni ñu ngi ko tuddee CAS Avenir LGBT objectifu programme bi moy préparer ak tàggat génération bo xamanteni ñoy porter programme góor jigéen yi fekk jëmi jamono organisation bi dañuy yëngu ci programme bi ni ñu leen citeel nga jël Education Development Center ñom bo demee seen site internet di nga fa fekk ben programme spécial bo xamanteni liko taxaju ko tax taxaw psychologiquement borom ñaari tour yi ci seen bërëbu kay ba duñu xarok yu ñu mel parce que waxon nañ leen ni ñu bari ci ñom góor jigéen yi dañoo febar wéruñ donc ñaari mbotay la yo xamanteni nii dañoo takk ripp ci dolel góor jigéen yi ci lañuy dox suba ngone actuellement nak dañu cibler Sénégal Macky Sall duggal leen ci biir réew mi ñaari mbotay yi ñoo lëkkaloo ak état bu Sénégal particulièrement ministère biñu ñu dénk wàllum njàng ba convoqué le 20 japp le 21 mai biñu wessu benn ndaje ci Diourbel ngir créer ay cellules genre ci biir école yi genre mom yaakaar naa jaruñu ci reveniraat terme bu mbotay góor jigéen siwol le fep ci aduna ngir nee nañ goor góor goor jigéen góor ak jigéen yi sey ak ñi nga xam ne dañoo dem sax ba soppi seen awra théorie du genre boo ko déggee mooy lii liste bii ngeen di gis mooy sénégalais yi participé woon ci ndaje boobu ñu amaloon Diourbel ñu leen di wooy ay responsable genre ñoo xamante ni dañ leen tàggat formé leen ngir ñuy wóyal programme genre ci biir réew mi ñu ngi bàyyeekoo ci ay écoles yu nekk Diourbel Bambey ak Mbacké ñu fay leen 15 000 francs par jëm par jour ak seen transport ak lépp léegi dañuy ñëw ci lan moo nekkoon objectifu ndaje boobu noonu ci bir ndaje bi dañu jox ay orientation ñi ñuy woy responsable genre yi ngir ñu adopter ba nopi tasaare digle yi nga xamanteni teunkul nañ ko ci ben étude genre étude bo xamanteni teug nañ ko ba nopi lolu amana dañ ci revenir at ci benen vidéo ñu permettre aussi ñi participer ci ndaje bi am ay jumtu kay ngir animer ay waxtaan jëm ci walum genre mais aussi convaincre seen mbokk jàngalekat loolu mooy ni ñu mëna naxé élève yi ak parents d'élève yi ak yeneen enseignants yi nga xamanteni andu ci birum góor jigen benen objectif bi nak mo nek ku ci ñoom joxe sa xalaat bu programme genre bi ñu bëgg a jëmmal ci école yi mëna a comme ñoom niñ ko bëggee mbir mi nag du yam Diourbel dong dañu cible yeneen région yu ci mel Dakar Kédougou Kolda Sédhiou Tambacounda Thiès ak Ziguinchor li mo nekk di xew actuellement suñu réew pour wal leen ni gars noppeeguñu ñaar ci organisation yi doxal programme genre bi ni dañ koy jëmal suñu biir réew dañuy dooleel ay góor jigéen kon est-ce que ñi ñun war nañ leen wóolu ak suñuy doom yaakaar naa ku nekk ci yéen war na ci mën a tontu. li tax nak ñu gëna a yokk def vidéo bi moy artu parents d'élèves yi gis nañu légui vidéo yi gars ñu koy partager ci groupe whatsapp yi loolu lu baax la ngir suñu yaay ak suñu papa yi nga xamanteni duñu dugg ci youtube ñu xam li nguuru Sénégal di wajal ak seeni dom ben génération goor jigéen la ñu bëgg préparer té ñu ngi ko bëgg a ci école yi donc il faut que association parents d'élèves yi yëngu rejoindre ensemble ci Jikko Yi ndax li ñuy xex seen njariñu dom la ni gaay di dajalo di tënk programme noné itam la waajur yi war di dajaloo ngir ceet li ñuy proposer seen dom ci biir école yi di wax aussi élèves yi ñu am fulla taxaw temm ñoom itam li ñu proposé barki di may élèves ci Rufisque feneen fu ñu ko defati na ndongo yëpp mànkoo dajale kayit yëpp delloo leen ko wala ñu jël ko taal wan jaamu seytaane yi ki gën ñun àndul ci projet bi tey ànduñ ci ëllëg ay club ànd sàmm jikko yi war nañ ko créer ci biir école yi nekk xale teewul nga responsable teewul nga engagé wu ndax ku defar sa ndaw boo màgg yi mën a jariñ sa réew kon taxaseelu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen di leen di daje incha allah yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf